li ab dog la ci tuddu mbirum ruux yi borom sagaratu yaqin neena yonante bi sallallahu taala alayhi wa sallama neena ruuxu doomu aadama bu génnee ci yaram wi ba am ñetti fan saa borom digal ma ma dem xool saa yaram wa ma nekkoon sunu borom tabaraka taala may ko ndigal mu dikk nekk fu sori di xool gis ndoxum bakkan yi génn ak muy jooy jooy yu gudd ni yow sama yaram wodoya di wii ndax yaa ngi fàttaliku ba ngay dund kër gi mooy kërug weet aki nattu aki njàqare ak réccu daa delluwaat bu amaatee lu mat juróomi fan mu ni saa boroom digal ma moo xooli sama yaram wa sunu boroom digal ko mu dikk ca bàmmeel bi du xool fu sori gis deret ji génn ci paxi bakkan ak gimiñ gi ak bopp bi ak ñaari noppam ànd ak dëtt muy jooy lu yàgg naan yow sama yaram wa doyadi wi ndax doo fàttaliku ba ngay dund kër gi nga nekk mooy këru njàqare ak i coona ak i sax ak i jiit sax yi lekk nañu saw yaram xotti sab der da delluwaat bu amee lu mat juróom-ñaari fan mu ni saa boroom digal ma ma seeti sama yaram wa bu ko sunu boroom mayee ndigal bu dikkee di xool fu sori gis sax gis sax yi nekk ci gimiñ gi muy jooy lu yàgg naan ndax doo fàttaliku ba ngay dund ana say doom ana say mbokk ana xarit yàlla daan wettali tey jii ñoom ñëpp ñangalee jooy ba yowmal xiyaama abu hurayra radiallahu taala anhu nee bi sallallahu taala alayhi ab jullit bu faatoo ak ruuxam dana nekk ca la këram lu mat weer di xool ñi mu bàyyi ginnaaw ak ni ñuy séddalee alalam ak ni ñuy fay ay borom bu weer wa matee mu dellu ca bàmmeel ba am fa lu mat at di xool ñi koy ñaanal ak ñiy jàq ngir moom bu at ma matee mu dollu foofee ruux yi di daje ba bis penc ibnu abbas radiallahu taala anhuma nee na yonente bi sallallahu taala bi alihi wa sahbihi wa salama nee na bu bisu kori wala tabaski ak wala asora wala guddik ajjuma wala rajab wala guddik nisfu saabaan dañuy génn ci seeni bàmmeel taxaw ci seeni buntu kër di wax naan yërëm leen nu sarax nu ak ñaan wala ab sarax doonte benn tibb ci bis bu barkeel bii ak guddi gu ku barkeel fàttaliku leen ñu ci ñaari rakka fàttaliku leen sunu tumuranki gi yéen ñi nga xam ni yéen dëkke sunu kër yi denc sunu soxna yi fi mu ne nun noo ngi ci biiri bàmmeel fàttaliku leen sunu tumuranki gi ak sunu ñàkk gi sunuy téere jëf taxañ nañ leen te yéen seeni téere kenn taxañu leen am néew dee su ko bindal lu dul lu ñu ko defal dee leen ñu fàttaliku ci ñaan ak sarax ndax aajawoo nanu lool bu ñu waxee lii dana am ñoo xam ne ñu am ak ñaan walla ñu amub sarax su ko defee bu ñuy dellu dañuy bég lool am na ñoo xam ni ñu am dara bu ñuy dellu jàq lool ànd ak naagu boroom bu sural kayib nee na yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallama nee na bakkanub ab jullit bu génnee àdduna jaami yërmande yi dañu koy gàttandu ni ngeen di gàttandoo kuy andi mbégte di wax naan bàyyi leen seen àndandoo bi ba nu noppalu daa nekkoon ci njàqare naa ko ana diw nu mu def ana soxna diw nu mu def am na boroom kër ak laaj yu mel noonu maam di ko laaj ana soxna nangam ndax am boroom kër di ko laaj ak yu mel noonu ba tey nee ci téere boobu yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi nee na ak ruux bu génnee day yéeg ci asamaan si su ko defee ruux jullit ya fa nekk di ko laaj ñañu xamoon ci adduna ba tey nee na ci téere boobu yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi nee na ñaari ruuxi jullit danañu daje fu sori ba mat ab bis te kenn ci ñoom ñaar mësta gis moroomam ba tey nee na ci téere booba ibnu abi dunya jële na ci abu luba nata nee na bisrubnul bara'i radiallahu taala bi mu faatoo ndeyam daa jàq njàqare lu tar lool ñëw ci yonante bi sallallahu taala alayhi am ñuy génn adduna ci ñoom lu bari ndax ñi faatu dañoo xamante ba mën a yónnee bisru ab nuyoo yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sallam ko ni ko waaw maa ngi waat ci yàlla tabaaraka wa taala mi sama bakkan nekk ci loxoom danañu xamante nii ñanaaw yi nekk ci kaw garab yi di xamante booba la tàmbuli kuy faatu ci banoo salaamata mu dikk ni ko assalaamu alayka mu ni ko wa alayki salaam mu ni ko nuyal ma bisru ba tey nee na ci téere boobu ibnu abi dunya jële na ci saïd ibnu jubayri mu ni kufaatu doomam ja nekk barsaq da koy teeru ni ñuy teeroo ku faddu woon ba tey nee na ci téere boobu ibnu abi dunya jële na ci saabitul bannaaniyu mu ni dégg naa ab néew ñi mu bàyyi ci ay ñoñam dañuy wéet waaye ña muy fekki ci ay ñoñam dañuy bég te loolu mi ngi mel ni ku tukki woon ba ñëw mi ay ñoñam di bége ci moom ba tey nee na ci téere boobu yonente bi salallahu taala alay bi alii wasabi wasalama nee na ab néew day xàmmee ki koy sàng ak ki koy sàng ak ki koy yenu ak ki koy yoor ci bàmmeel ba tey nee na ci téere boobu ibnu naim génne na ci téere bu tudd alxiila jële ci homar ubnu dinaar mu ni bépp néew boo xam ni malakul mawtu génne na ak ruxam ba mu nekk ci ak ab loxoom day gis aw yaramam di gis ni ñu koy sange ak ni ñu koy sange ak ni ñu koy yóbboo su ko defee dañu ko naan diglul taggi nit ñi ci yow moom mu tëdd ba tey wax na ci téere boobu ni ibnu abi dunya jële na ci sufyaan mu ni ab néew dana xam lépp bay wax ka koy sang naa ko def ma ndànk ngir yàlla tabaraka wa taala ba tey wax na ci téere boobu ibnu abi dunya jële na ci bakrul al musniyu mu ni nee nañ ma ab néew day bég bu ñu koy gaawe di ko yóbbu ci armeel yi ba tey nee na ci téere boobu ab jullit bu faatoo suuf si mu daan jullee da koy jooy ak fa ay jëfam daan jaar di yéeg ci asamaan si ba tey nee na ci téere boobu tirmisiyu ak abu yara ak ibnu abid dunya jële nañu ci anas radiallahu taala anhu mu ni yonente bi salallahu taala alayhi bi alihi wa nee na jullit bu nekk am na ñaari bunt ci asamaan bunt buntu boo xam ni ci la ay jëfam di jaar di yéeg ak bunt boo xam ni ci la aw wërsëgam di jaar di wàcc bu demee ba faatu dañuy jooy ngir moom ba tey nee na ci téere boobu abu naim jële na ci xatta u alxurasaaniyu mu ni ab jullit bépp barab mu masa ci kaw suuf si bu ëllëgee dana ko seeru te bis bu dana ko jooy ba tey nee ci téere boobu aboo addiyin andi ci alkaamil ak aboo mandata ak ibnu hasakir ci taarixam jële ca ibnu amar radiallahu taala anhuma mu ni yonente bi sallallahu taala alayhi wa alihi wa ab jullit bu faatoo bàmmeel yi dañuy takkaayu ci moom maam dañuy dolliku ci moom ab taar wallahu alam bërëb bu nekk day mébét ñu rob ko fa moom ba tey nee na ci téere boobu kàddu yi mun kër ak nàkkiir ci jullit ñi day mel ni tusngal ci seeni bët noonu lay mel ci seeni nopp bu ñu leen déggee ëncug bàmmeel ci julli ñi mi ngi mel ni ndey joo xam ni doomam da koy jàmbat bopp buy metti mu ko koy bësal ndànk waaye xaayisa yéefar yi danañu am mbugal ci seeni biiri bàmmeel dañu leen di tànc ni aw doj di def bu dalee ci am nen ba tey nee na ci téere boobu ni ibnu abi dunya jële na ci muhammadu taymiw nee na li tax tàncug bàmmeel am moo di suuf mooy cosaanu doomu aadama waaye dañoo jóge ci moom fàddu lu yàgg ba dellusi mu leen di tàpp ni wayjur di tàppe doomam joo xam ni daa dem lu yàggu dellisu ku daan topp yàlla tabaraka wa taala tàppuk ñeewantu lay doon ci moom akuk ndànkal ku daan moy yàlla tabaraka wa taala tàppuk mer lay doon ci moom ak ñàkk ndànkal ba tey nee ci téere boobu ab jullit bu ñu ko suulee bi de koy yaatal naa ko marhaban wa ahlan boroom busral kaib nee ibnu abi shaybata ak tabaraaniyu ci al awsat ak ibnul xibaan ci saxiixam ak xaakim ak abu al bayhaqiyu génn nañu ci abu hurayra radiallahu taala anhum mu ni yonente bi salallahu taala bi alihi wa sabi wa nee na maa ngi waat ci yàlla tabaraka wa taala mi nga xam ni sama bakkan mi ngi ci loxoom am néew bu ñu ko suulee bay dem dana dégg seeni dàll nañu koy fëgge bu fekkee ab jullit la ak julleem mooy nekk ci wetug bappam asaka nekk ci ndey jooram koor nekk ci càmmooyam yiw yi ak njekk yi ak rafetal gi mu daan rafetal jëm ci nit ñi nekk ci weti tànkam malaaka dana ko jaare ci wetug boppam ak julleem ni ko doo jaar ci man mu jaar ci wetu ndey joor asaka ni ko doo jaare ci man naka noonu bu bëggee jaare ci wetu càmmooyam koor da ko naan doo jaare ci man bu bëggee jaare ci weti tànkam njekk yi ak yiw yi ñoo ko naan doo jaare fii ñu ni ko toogal mu toog ñu ni ko te booba jant baa ngi waaju sa tontul lii nu lay laaj mu ni leen bàyyi leen ma ma julli ñu ni danga ko def waaye tontul ba noppi mu ni lu ngeen may laaj ñu ni ko góor gii ñu yónni woon ci yéen loo wax ci moom mu ni yonente bi yàlla la tabaaraka wa taala bu dikkoon ci ñun andi ay firnde nu gëm ko topp ko ñu ni ko dëggal nga ñu ni ko dëggal nga ci lii nga dund ci lii nga faatu ci lii lañu lay dekkal ubbil ko ca biir bàmmeelam lu toll ni guddaayu ab gisam buntu sawara ni ko boo moyoon yàlla tabaaraka wa taala fee ngay dem mu gën a bég ñu ubbil ko buntu bu jëm àjjana muy gis ñu ni ko leela la yàlla tabaaraka wa taala defal fee mooy sa kër mu gën a bég ñu daa di delloo yaram wi ci suuf def ruugi ci ñanaaw lu ñuy wax adna siim mu nekk ca kërub àjjana lii ab dog la ci dëkkuwaay ruu yi bu ñu génnee àdduna al asiru nee na am na ci boroom xam-xami xikam yi ku ñu laa doon ruu yi fu ñuy nekk bu ñu génnee ci yaram yi mu wax ni ruuxi yonente yi alayhimu salaatu wasalaam jannaatu adnin lañuy nekk ruux yi ñu ci xare yi muy shahid yi firdawsi nekk ci joqi ay njanaaw yu yore meloy xobi garab yu tooy di naaw ci biir àjjana fu leen neex àgg di dikk ci làmp yañu aj ci xaras ruuxi jullit ñi ci joqi pittaxi àjjana lañuy nekk ca jabalul misk ba yawmal xiyaama ruuyi doomi yéefar yi duñu yegg àjjana duñu am yitam benn saxawaay ba yowmal xiyaama ruux jullit yi amee tooñaange ak i bor duñu yegg àjjana duñu yegg ci asamaan si ba keroog ñuy matal xàq ya ruuxu yéefar yi sijjiin lañuy nekk ca sawaraw jahannama ñu leen di mbugal suba ngoon am nañu wax nañu wax ni ruux yi jullit ñi ci joqi ay ñanaa lañuy nekk yor yor meloy xobee garab yu tooy ca illiyin ruuxi yéefar yi ci joxe ay ñanaaw yu ñuul yu nekk ca sawara amma xam dëgg-dëggi ruux moom nee nañu yahood yi mas nañu mas dikk ci yonante bi sallallahu taala alayhi wa alihi wa sahbihi di ko laaj lan mooy ruux sunu boroom wàcc ay bi wa yasalunaka ani ruux xuli ruux min am bi nee nañu maxnaa mi mooy xam-xamub sama boroom la fan lay nekk ci yaram wi am nañu wax ni lu ñu boole la ci dund gi waaye nekkul ci mbooleem yaram wi waaye ab xaaj la ci moom boo xam ni deesu ko ràññee loolu li ciy tegtal moo di danga gis ku bari lool ay jam-jam aki i mettit ci yaramam te du faatu gis koo xam ni benn gaañu-gaañu lay am faatu li ko waral moo di daalaal bërëbub ruuga am na ñu wax ni ci yaram wépp la nekk ruux ak rawaan nee nañu li leen teqale moo di rawa rawaan day dikk ak akadem ruux moom du yëngu ba tey ruux bërëb bi mu nekk ceeram wi nekkul lu ñu ràññee te rawaan ci diggante ñaari yéeni bët yi la nekk ruux bu deñee jaam bi faatu rawaan bu demee day nelaw ke borom busral ka ib nee na ruux yi dañuy siyaarante ci seeni bàmmeel yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbi wasama nee neen déedéen rafatal càngaay ñi faatu ndax dañu ci puukarante ak a siyaarante ci seeni bàmmeel mel na ni matal ko mooy rafetal ko ba tey nee ci téere boobu ibnu abid dunya nee na ci téere almanamaat am na waaju soxnaam masa faatu mu gént ay jigéen waaye gisu ca soxnaam mu laaj leen ñu ni ko da ngeen a gàttal càngaayam moo tax mu wursa ànd ak nun kooke yonente bi salallahu taala alayhi bi alihi wasabi wasalama wax ko ko mu ni ko boo amee ku wóor mu ñëw ci kenn ku bokk ci lansaar yi ku doon fa bëgg a faatu wax ko ko mu ni ko bu fekkee ku faatu dana mën a jottali keneen danaa ko jottali ba mu faatoo mu andi ñaari càngaay yu yu mboq dugal ko ca biir càngaay la ca guddi googee mu génn taat ay jigéen gis ca soxnaam mu yor ñaari càngaay yooyee ba tey wax na ci téere boobu ab jullit bu faatoo ay waa këram dañuy ñëw di ko laaj ana diw nan la diw def ba tey nee ci téere boobu mujaahid nee na ku faatu day bég lool bu amee ko xam ni ku yiw la ci ay ñoñam ci àdduna ba tey nee ci téere boobu ibnul xayim nee na ruux yi ñaari xaaj lañu am na yu ñuy mbugal am yoo xam ni dañu leen di xéewal ruux yi ñuy yi mbugal te lu ñoo nekk di siyaarante waaye ruux yi ñuy xéewal boyal leen dañuy siyaarante di fàttaliku lañu nekkoon ci àdduna ak li waa àdduna nekkee ruux gu nekk day am ku muy àndal wax na ci téere boobu ibnu abi dunya nee na ci kitaabul xuboor ni Aïsa radiallahu taala anha nee na yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama képp ku siyaare barabu mbokkam toog fa dana ko yëg dana wéttaliku ci moom dana ko delloo am nuyoo ba tey nee na ci téere boobu ibnu abu hurayra radiallahu taala anhu nee na yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi nee na ku nekk ci bàmmeel dana xàmmee ay àndandoom dana xàmmee ab àndandoom bu ko nuyoo dana ko xam dana ko nuyoo bu fekkee boroom bàmmeel ba xamoo ko du tee boo ko nuyoo mu del loola ab nuyoo wax na ci téere boobu ni muhammadu bnu waasiya nee na dégg naa ñi faatu dañuy xàmmee ku leen siyaare ci bisub juma ak alxamis ak gaawu wax na ci téere boobu ni yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi na ab néew bis bi gën a rafet ci moom mooy bis boo xam ni ku mu soppoon da siyaare wax na ci téere boobu ni ibnu xayim nee na xadiis yi ak nettali yi xam le ab néew day xàmmee ku koy siyaar la muy wax di wéttaliku ci moom ak di ko delloo ab nuyoo bari nañu lool lii nag lu matale la moo xam ñi ci xare yi wala ñeneen te it amul wenn waxtu wu muy yam loolu moo gën a wér nettali addaxaak boobu di di tegtale ni day am aw waxtu yonente bi sallallahu taala alayhi wa alihi wa sahbihi moo yoonal ci aw xeetam ñu nuyoo bu ñu duggee ci ay bàmmeel kem nuyoob kuy dégg di xam wax na ci téere boobu ni yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa nee na ñi faatu ci xare yi seeni ruux ci joxe ay ñanaaw lañuy nekk yu mel ni xobi garab yu tooy di wër ci àjjana fu leen neex di ñëw ci ay làmp yu nekk ca aras wax na ci téere boobu ni ibnu abbas radiallahu taala anhuma nee na yonente taala alayhi bi alihi wa sahbihi seen àndandoo ba ñu leen sonalee ba ñu faatu ca Uhud sunu boroom daa def seen ruu ci biir ay ñanaaw yu mel ni xobi garab yu tooy ñuy rot ci dexi ajjana di lekk ca meññit ya di ñëw ci ay làmp yu nekk ca aras yu wurus yu nekk ca keruk aras boroom busral kaib nee na yonente bi sallallahu taala alayhi wa alayhi wa sahbihi nee na gépp gone gu juddu ci lislaam faatu àjjana lay nekk man di suur naan naan saa boroom andil ma sama ñaari waajur subhaana rabbika rabbil izzati amaa yasifuun wa salaamun ala almursalin walhamdulillahi rabbil alamin allahuma bi haqqi wajhillahi taala alkarim salli wa sallim wa barik ala sayidina wa mna muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallama tasliman wa alihi wa sahbihi salatan wa salaaman wa barakatan taquudu biha li cheikh alxadim maxtarta waradita lahu fi lxaali walmaal téere boobu foofu yam yal na ah, sëriñ tuuba nangu liggéey boobu nga xam ni sëriñ alxaaji mbakke moo ko doon def ngir bëgg jullit yi yépp jariñu ci mu doon liggéey boo xam ni liggéey bu yaatu la boo xam ni njariñ luy doog a tàmbale waaye fa mu yem yàlla rek moo ko xam ak sëñ bi mu def ko it ngir jublu ci liggéey def ko muy liggéeyub sëriñ tuuba kon nin koy ñaanal te képp ku ci jàng dara wala mu dégg ko nga ñaanal ko loolu te mooy bëgg bëggam mooy yal na sëriñ tuuba nangu liggéey boobu laa faale ci mboolem ñi nga xamee ni dañ koy yittewoo ak di ci sonn ak anam gu man di doon yàlla na leen ci sëriñ Tuubaa defal nangu lu kawe njort wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu danoo wax bis bi muy fukki fan ak juróom-ñaar la àgg di bisub talaata jumaadal axira waaye mi ngi doon ci atum it mille quatre cent ci hijriya atum junni ak ñeent téeméer at fanweer ak juróom-ñeent ginnaaw gàddaay gi mu ngi dëppoog it juróom benn fan ci weeru mars ci 2018 ci milaadiya